rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk auditeur Almadina FM dellusiwaat nañu fii ci rajo Almadina FM 100 point 8 di émettre fii ci Bourguiba bu dee Kaolack la ngeen mën ñoo déglu ci 98 point 8 seen émission nag comme ni ko defee woon fan yële passé rek ñu wax Wadduha ndax dèjà Wadduha rek xam naa ne su ko yenn ñenn ñi déggee euh, dinañu xam kan la euh, kon seen émission Wadduha di am aljuma bu jot a partir de 22h jàpp 23h euh, ki nga xamante ne ni ñu koy wax Mara Cissé ñu gën koo xamee ci ñu koy wax Moodu Cissé ñu gën koo xamee ci Mara Cissé di leen ko defal ki leen koy présenté di Cheikh Fall Sow tey comme ni ko defee woon fan yële passé rek ndax mbokk yu bari ñu ngi ko doon rafetlu te dina am yu bari sax laaj yoo xam ne denc naa ko tey ndax ah man dama kontaan si yow pourquoi. Uh-huh. <laughs> Euh, parce que dama gis nga bind téere te dañuy wax ne borom xam-xam yi nañuy bind. Uh-huh. Uh-huh. ndax soo gisee tey ñu ñuy wax ay Descartes ay Montesquieu ay Jean Paul Sartre ay Darwin. nga gis c'est parce que dañoo bind ay téere bàyyi fa ba tey te te téere yañ bind sax daanaka doxalinu jamono la joxalinu àdduna la. mais ñu gis ne Mara bind nga téere te bind yombul. muul téere yombul. <laughs> waaye aussi nga tënk ci xam-xam boo xamante ni nii fii ba abadan di ndaay man ndappat <laughs> dafiy resté kon mooy lu am solo <laughs> ndax boroom xam-xam yi bu ñu doon def nii defe naa ne ñëpp dinañ jëriñu te gis naa ne aussi téere bi lu si baree baree bare ngi nii xam nga jamono yële paas jotuma ko woon a càmbar bu baax ndax ay mbokk ñu ngi ma doon kii mais euh, gis naa si biir téere bi ne sax euh, bu la mën a bàyyi nga nuyoo <laughs> ci nit lu muy war a mën a jaamoo yàlla ak façon bi mu war a xam ne war na ko mën a ñaanee tegginu ñaan. <laughs> yëpp yaa ngi ko dëxañ ci biir. <laughs> mais xam naa ne su ma la bàyyee nga nuyoo. ñu dugg ci biir téere bi. ba ñu xam ne daal tey xam-xam nit lekk nga ndekete moo gën suuf lekk. wallaay ndeysaan kon sëñ Mara ñoo ngi lay nuyu. Euh, jërëjëf Cheikh Sow euh, Cheikh Fall Sow. baax da axusu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل xoqdatan min lisaani yafqahul qawli alhamdulilah la ñuy wax ndax toogoon nañ fi jotaay ñaanoon yàlla mu may nu nu toogaat jotaay yàlla may nu ko noonu lañ koy ñaane tàmbali jotaay bi si bisimillahi rahmaani rahim ñaan yàlla lépp jub si kàttanam ak man-manam ni nga ko waxee émission Wadduha la si Al Madina dimanche bu nekk nu fi wettali konte 22 heures ba 23 heures nu fi wettali konteeg Cheikh Fall saw nu ngi koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal ak euh, mbokk technicien bu baax bii nu jàkkaar lool du nuyu fépp sëñ Fallou Sow di nuyu fépp foo xam ne suñu kàddu àgg na fa di nuyu di siyaara di ñaanal ñëpp nanu yàgg di koy wax di ñaanal ñëpp mucc si géej géeju xéewal fa laa loolu mooy nuyoo bi xam naa dañ lay bàyyi nga ñëw si waxtaan bi tey. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mara euh, ma fàttaliwaat mbokki auditeurs rek ne rajo Almadina FM ngeen di déglu 100 point 8 demee fii ci Bourguiba. <laughs> Uh-huh. Euh, seen émission Wadduha ki leen koy defal ñu koy wax Modou Cissé. Uh-huh. Serigne Modou Cissé ñu gën koo xamee ci Mara Cissé. ki leen koy présenté di Cheikh Fall Sow. Uh-huh. dañuy dellusiwaat tuuti si wàllu téere bi ndax. xam naa ne li ñu wax liy duuf ci ñag bi yëpp xëjul ci ci li kon une heure de am. Euh, te gis nañ ne amuloo jot. wallaay wallaay dinaa dugg tamit ci li nga xam ne moom mooy pharmacie Wadduha. Ah, ah, ah, ndax gis naa ko pharmacie Wadduha. wallaay wallaay ak euh, les éditions Wadduha. mooy damay dellu si waat ci li nga xam ne moom mooy kaaraange. ndax dañuy wax ne ñaari tawat moom tawatu poos ak tawatu yaram. wallaay ndeysaan mais bala maay dugg ci yooyu. Euh, sëñ Mara damay njëkk dugg ci li nga xam ne moom mooy livre bi ndax gis naa ne. Mhm, mhm. def nga ko ci wolof def nga ko ci français. wallaay wallaay wallaay wallaay. Euh, ci sama njëlbeen wax. maa ngi lay wax ne xam nga gars yi ñu ngi lay wax Jean Paul Sartre moom moo wax li nga xam ne mooy Big Bang. Mhm. éclatement des kii la. ñu la doon wax ne Darwin ñooñu Darwin. Mm-hmm. moom mooy le britannique 1802 1882 te ay borom xam-xam lañ. Mm-hmm. moom moo mm-hmm. doon wax sax d'ailleurs nit ci golo la jóge. waaye alxuraan weddi na ko xam. <laughs> lu wér. ñun <laughs> ñuy wax ay Montesquieu la séparation des pouvoirs. <laughs> Eh, eh, lu tax eh. leen tudd tey du téere. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. kon sëñ Mara. yow tamit pour ñu mën laa tudd yow tamit téere moom mooy tax ñu mën laa tudd. tënk xam-xam bi nii. wallaahi ak laabiir gi nga ci laabiir. wallaahi wallaahi tey foofu laay dugg ak yow. nu si nu si sant yàlla bu baax sëñ Seex ndax dafa doon lu nu ni seroon. te macha allah mu àndoon ak coono waaye lépp it ak ndimbalu yàlla yàlla dimbali nu si ba mu am. Mm-hmm. ndax dafa dañuy yàgg a dégg nu naan nangam. baax na nit di koy ñaanee. Mm-hmm. nangam baax na nit di koy sikkar. Mm-hmm. nangam baax na it nu koy bind nangam baax na nit di siy muslu. wala mu siy ñaan lu mu bëgg a ñoddi. noo xam ne bii nit ñi ñu bëgg lu baax la ñu bëgg xam-xam lan. fa tabaraka laa nu yéene woon ne li nu yàlla jagleel. fa tabarakalaa yéene nañ ko bokk ak àddina bi yëpp. looloo doonoon sabab bi te noo xam ne bii gëstu yu bëree bëree bëri. si nasaraan bi la. ñu si bëree bëri côté nasaraan lan ëpp moo ëpp nu lu nu nu nu nu am si wëlle rek xarit yu baax yoo xam ne bii jàpp nañ si. Uhuh. ndax koo gis kitaabu Wadduha te nu ne ki ko. defar ndongo daara la. Mhm. da nga xam ne macha allah bari nañu sa jàpp. Mhm. looloo doonoon yéene bi ni nga ko waxee nag du lenn rek lu du ñëpp mucc ñëpp yokk. Mhm. nee na noonu mission Wadduha si kat loolu lañ yéene. Eh, si kattanu yàlla képp ku nu yàlla booleel. ngay mucc di yokk. mooy tax macha allah bi nu waxee nu dégg te nu ne bind day des. nu yéene def téere boo xam ne trois cent treize la. ni nga ko waxee tàmbale gi nekk xibaada. ndax mu ngi commencé si laab. koo xam ne bii tele nga noo xam nan la ni laabee. moom mooy première soo fa demee danga ko mën a am. Mhm. moo xam laab si sangu set ne nu koy waxee. Mhm. wala jàpp te bëri lool ñoo xam ne bii danoon koy doyadal. Mhm. te laab mooy lépp. ataxaara nisful iman ne nu ko xaddis waxee. fat moo tax nu ubbee la base. wallaay wallaay mooy lépp. nu ubbee teg si xibaada ba tey ndax mooy jéem a xam. jéem a sopp asmaawu lay li xusnaa yi mooy mhm. noo da allah yi nga mhm. xam ne bii képp ku ko wattu sa yaram day xaram safara nu mhm. indi len nat si njariñam pour nit ñi gën koy bëgg fa tabarakalaa ndax bari na lu nit di doyadal dafa kump ga rek la macha allah waaye su ku xam liy nekk si asmaawu lay li xusnaa fa tabarakalaa loo ko jàppoon da nga ko gën a jàpp. d'accord moom it nu boole ko si ak yeneen ak yeneen xam naa da nga si ñëw si kanam. waaw dinaa si ñëw si kanam mais bala maay ñëw damay def benn parenthèse ndax. Mhm. Euh, il faut que nga indi si benn tontu ndax léeg-léegi. Mhm. Euh, may dégg ñenn ñi ñu ne waaw euh, secret kenn du ko bind téere wala di ko weer wala di ko kii. Mhm, te dañu wax ne des fois bu am na sa téere bi dafa renfermer ay secret la ñu wax. Mhm. wala te ñu ne eh. lan moo tax yow nga fësal secret yooyu di ko bind ci téere. <laughs> ndax am na ñu ko dinga mel noonu. <laughs> machine ba la sëñ xadim sëñ xadim nekk. waaw fat ma nga say liggéey la ma bëgg liggéey lépp mais hmm. am na si loo xam ne ba tey secret la sa moom. dëgg la loola du ñëpp koy xam. dëgg la loola seen sëñ seex mooy la nga xam ne bii xam nga ngànnaay sañ nga. mën nga am njëgu fetal mhm. waaye suñoo ko yor di koy doxantoo te amuloo autorisation. de port d'arme da si am xam-xam yoo xam ne du du fépp la war a siiw. dëgg la waaye loo xam ne dan ne la soo ko defee mucc. Mhm. soo ko defee seytaane sori la. Mhm. ko defee bu la sunoon fexelee du du ko defee sa yaram dafa xaw a jaga di boo ko defee yaram ba mën nay woyof. loolu bokk ko jullit yépp moo gën. Ah. loolu kenn du ko nëbbu. loola moom fa tabarakallah du du xam-xam bu nuy war a nëbbu. Mhm. am na si loo xam ne nag jagleel la ndax xam-xam la ngay yër la la ngay yëg. Mhm. la ngay yëg nag loola mën nay nekk leneen. Mhm. loolu moom xaj ña mën na di wax ne duy siiw. waaye lii nga xam ne li si nekk lépp sunna la. ndax lenn nag génnu sa alxuraan. fa tabarakallah bokk ko jaam ñëpp a gën. faatixatul kitaab nga xam ne nu nga xëy koy jàng toujours. da mhm. nga mën see wax nit loo xam ne dana ko saafaraal tawatam. Mhm. dana ko fajal aajoom dana leeral xolam. Mhm. loola fa tabaaraka la bokk ko ñëpp man moom laa gën a gis. effectivement <laughs> loolu am na solo parce que am na ñenn ñoom ne dañ ne daal am na secret yoom da ko cee dëxañ euh, eh, la ñun yàlla dimbali noonu émission Wadduha loolu laay wax toujours war ko bàyyee caabi. wallaay wallaay nangam ñëwal si man nangam ñëwal si man ñun loolu du suñu yoon. Mhm. dañoo yéene fu nu mën a toog ak fu suñu kàddu jibee nit mhm. mën a am lu mu fa jariñoo mhm. loolooy saba bu téere bi. Mhm. nee naa nit ñi danoo bëgg danoo bëgg xam-xam. Mhm. te xaj na euh, nan koy amee xaw di jafe. Mhm. mën nay am la dégg doo la ngay bind doo ko jàpp. xam nga dama def émission dama di def benn émission depuis 2012. fa tabarakalaa toujours ngay dégg la nga waxoon daa am lu ma sikki. dama bëgg lii dama bëgg la li ma mujj xalaat ne lii jéem a jaam yàlla si loo xam ne danga koy bokk ak jaam ñëpp. mooy gën. te mooy loo xam ne day des. loolu bokk na si li gën a waral sababu kitaabu Wadduha. loolu am na solo mhm. parce que suñu gisee ndongal daara ak ñi booleem ñi nga xam dañuy jàng fii. Mhm. di jënd ay téere quatre-vingt mille francs ay livres presque soixante quinze mille. parce que am na livre yoo xam ne ça coûte extrêmement cher. Mm, mbokk bi ma si doon jàppale loolu ma wax ne ma mhm. livre bi bul ko wecc ko mukk lu yees quarante ne ko déedéet. ba mën la ñàkk ba mën la ñàkk nan xaaj loolu la. te lii da lay njëriñ aduna ak àllaaxira wallaahi wallaahi parce que lii njëriñu aduna ak àllaaxira la nee naa waa képp ku ko am moom si kattanu yàlla. Mhm. mën na la defaral sa dund gépp. si kattanu yàlla. parce que déjà mhm. gis naa fii yaa ngi ci mhm. première partie bi. yaa ngi wax la purification en islam. mooy nan la ñuy laabee. nan la ñuy sellee wallaay wallaay te nag problème yu bëree bëree bëri sañ seex. Eh, ñàkk a laab rek ko waral. dëgg la waaw sayaatin yi seen i pexe yay antoog fa tabarakalaa fiir mm. yay jàpp ak e, kortu yay ni sànni mu dal yooyu yëpp bu nit dee saxoog laab mm-hmm. di saxoog tudd yàlla mm-hmm. dinaa koy wax dinañ koy sànni dara loolu day dem ba primé mm-hmm. wala day wër ba sonn amaan na sax mu dëpp mu dëpp dal sax ko sànni woon effectivement yooyu yëpp nag fa bëgg nit ñi gën a gëm seen bopp comme ni ñuy wax anti missile missile anti missile mu ngi noonu fatabar lu mu ngi si. Mhm. anti missile wala belende. Mhm. yooyu yëpp fatabarakala mu ngi si. effectivement lépp loo xam ne luy jariñ doomu aadama la. Mhm. lépp loo xam ne luy jariñ doomu aadama tënk nañ si suñu kéem kattan. si kitaabu Wadduha effectivement mhm. euh, waaw maa ngi fi gisaat encore ci li nga xam ne mooy deuxième partie bi mhm. mooy euh, di sikar turu yàlla yi mooy euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi yi nga xamante ne ni moom mooy ci turu yàlla yi te doo dégg mukk nag nu ne kii sekkaro ko dofloo mhm. te mu yem si tur yi dafa tabaraka laa ah, lépp am nañu ne tur yàlla day dofloo de waaw loolu la <laughs> waaw xam nga day xaw a nuroog allah lu lu ne cent watt lay attan nga ñëw branche sa 3000 watt. Mhm. faaw mu am na mu def. da am yoo xam ne bii tour yoo xam ne lam day diis diis goo xam ne war nga say am isn war ngay am sart ya nga koy liggéeyee tamit. Mhm. waaye juróom-ñeent fukk juróom-ñeenti tur yi xam nga dooy dégg mukk nit ku ne dafa xelam dafa wëlbatiku. dina mhm. da doon sikkar rahman wala daf doon sikkar latif. Mhm. wala daf doon sikkar raouf wala daf doon sikkar karim. Mhm. yaakaar te yooyu yëpp fa tabarakallah eh, asmaaullahi husna la yoo xam ne indil nañ leen si yoon yoo xam ne lépp luy aajo. moo xam ki nga xam ne bëgg na am taxee àddina ak àllaaxira comme rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ya allah noonu nga koy toppoo ba si sabuur fa tabarakallah da nga am àddina ak alaxira su fekkee ne bi looy xewloo nga say ut adxamahum min jooxin ya allah adxamahum min jooxin ya rahman adxamahum min jooxin ya rahim ba si sabuur <laughs> fa tabarakallah doo ñàkk mukk mukk mukk looy sàq mi mhm. su fekkee kiis nga si ut tamit rabbi mhm. sidni xilman yaa allah rabbi mhm. sidni xilman yaa rahman rabbi sidni xilman yaa rahim ba juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent te ñaan moom ndax ki ngay ñaan muy nangu ñaan kenn la mooy jalla jalaaluhu kon nit mënula am lu ëpp quatre-vingt-dix-neuf yooyu dafa tabarakla 99 tur la yoo xam ne boo sa barkeloo. Mhm. mën na faj ajo mhm. rawatina nag nga barkelu si 99 yëpp. effectivement nu indi lu tuuti nag loo xam ne bii macha allah bu seen it defee tawasul. Mhm. daf si tabaruk. bu si wooyee yàlla yàlla mën na ko see wuyu. effectivement mais am na benn mbokk boo xam ne nee na ma yàlla de ñëpp lay dégg waaye du ñëpp lay déglu. <laughs> wala waaw dégg ak déglu lu wut la <laughs> loolu lu wér la. <laughs> non dama gis benn euh, mbokk. Eh, eh. mu ke mu kaamil bi mu a ma. Cheikh dañuy yelwaanal kaamil gi ma ne ko déet da nga naan da ngay yelwaanal sa bopp. ndax kaamil eh, wallaay ndeysaan wallaay lu a wér a ne waaw ma ko da naan dama yelwaanal sama bopp mu ne waaw wallaay léegi ndax am na ci yoo xam ne xam naa ne sëñ Cissé euh, peut-être que. xamuñu li ñu yor. Mm-hmm. lu wér a wér lu wér lu wér lu wér lu eh, wér. te suñu ngëm-ngëm aussi xam nga mm-hmm. tubaab. dafa wala li ñu wax am ko te xamoo ko. Mm-hmm. dafa mel ne dañoo toog ci jamaa di yelwaan. dëgg la lu wér a wér danañ di wax tamit ne eh, jamaa fu ñu jaayee jamaa ak përëm. bu përëm ba njëkkee jar sa njaayeen ba la. <laughs> wallaahi jullit <laughs> ah. jullit. dafa amul lu gën alxuraan. dëgg amul lu ko gën a kawe. dëgg la si dinaa koy wax ne lépp léegi la gën a.

sunuy xaajo dinay faju mm-hmm. sunuy yaram dinay wér mm-hmm. tey kenn du nu not mm-hmm. waaye fa tabaarakallaa eh, saytaane mën nañu bëree bëri ba ñun lu ñëw rekk nu say waaru te du nu waaru sa la nu yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa te mooy alxuraanul karim te fa la boo xam ne ba ilaa yow mi diini mm. du am lu ko gën a kawe nee naa la booba dantaay man ndappat <laughs> eh, eh, téere bi dafay resté wallaay wallaay <laughs> téere bii <laughs> Wadduha kitaabu Wadduha ba abada wan na di tukki wallaay ndeysaan <laughs> day resté parce que kii même war nga mën a yóbbu sax ci archive yi fële mhm. euh, ci kii ba ñu def ko fa mhm. euh, su ko defee defi resté ba abadan daay man wallaay wallaay kon daal bu la déggee moom mooy que ne bu ñu taxawee dëggal suñu bopp mhm, na si loo xam doo dem fenn di ko jéggaani doo dem fenn di ko fa wuti soo gëmee sa bopp mën nga ko defal lu wér a wér da nga solo nag mooy gëm sa bopp waaw ma ne allah nit day gëm gëm boppam. dinaa di wax ne kii jomba ki jombale boppam deuxième. doo ko dégg mukk mu jël première. effectivement <laughs> waaw loolu te toujours it boo jàkkaaru ki nga xam ne bii ku jege la. koo xam ne bii boo ko woyee mu wuyu la te moo la wax ne ñaan ma. digle soo ko ñaanee mu wuyu la. su pas-pas ba dëgëree rek. fa tabarak laa jàppal ne la ngay sàkku da nga ko am. effectivement nanu ko waxee rek mbër ma doon bàkko ma doon bàkko ku ne yàcc maa ko man. Mhm. ku ne yàcc maa ko man. ka ko doon tëggal daa jekk-jekk nag ko mënatuma tëgg ndax ku ne yàcc a koy mën. effectivement sans kon loolu lu am solo la mooy gëm sa mhm. gëm sa si. nga xam ne mbir yi kenn ko yor. Mhm. te boo jaaree sa yoon ba rek fa tabarakallah da nga àgg. effectivement ma mhm. xam leen ne livre bi 311 page la. 313 mhm, 313 euh, par di boy sax ma. parce que voilà 313 page la. Euh, boo xam ne Mara def ko génne. peut-être que sax presque lii 2 heures de temps moo ñu ci. lu si nekk si alxuraan si ayaat yeeg ak nuy si kër yëpp it man nga ko am si. ci français bi. ni nga ko mën a jàngee si. parce que maa ngi koy gis nii version française noonu nga ko mën a jàngee si français ak euh, version bi nga xam ne moom mooy ci alxuraan bi parce que mhm. version française mhm. ak kii bi moom la ñu def nii benn mbokk daf ko jël si woon fan yàlla war na tukki Gabon mhm. mais nee na si aéroport bi la si commencé liir tuuti mais nee na ña ko jote gis ñëpp doonoo yéemu c'est né li lutax tax bi yëpp. agul mhm. fépp. Mhm. mané ko yéene bi ci kattanu yalla moy ñepp ñepp ñepp ñepp jariñu ci ñepp mu ci au niveau national rek nga ko yemale. si si kattanu yàlla néew na fu agul ci continent yi fi ñu toll. Mhm. néw na fu agul àggul. 3 www.wadduha.org. képp ko fépp fu way nek su ko rek. point wadduha www.wadduha.org uh-huh. d'accord fépp fu waay nekk su ko ubbee lépp lu mu bëgg a xam si ñun. Mm-hmm. dana ko fa fekk. su nekkee ne par exemple ku bëgg am téere bi aussi. Mm-hmm. point de vente yi moo nekk eh. nii Géejawaay. Mm-hmm. Euh, maa ngi gis numéro bi nekk 77. 617. 70 44. 77. 617. 70 44. beneen bi moo nekk point E nekk 70. 922. 23.

Euh, man itam am na benn bokk bu ma woo mu ne ma def ko doon déglu ci woto mbuur la dëkk. dëgg la dëgg la macha allah mbuur bu ñu bëggee ci téere bi def naa ne woo jox naa ko. seen wallaay jokkoon nañ jokkoon nañ jokkoon nañ si kàttanu yàlla dina fa àgg. naa jokkoon ba jox naa ko bés si ne dana ko fa mën a am. Hmm. ba suwaal suñu yi nekkee foofu yëpp macha allah. ku hmm. ko soxlaa côté yooyu. d'accord dina ko fa mën a am si kàttanu yàlla. kon ma fàttali hmm. leen seen émission Wadduha ngeen di déglu ki leen koy defal di euh, Modou Serigne si Cissé ñu koy wax Mara Cissé euh, ki leen koy présenté di Cheikh Fall Sow. Mhm. Euh, fii ci Almadina FM 100 point 8. Mhm. kii nekk ci kabante ñu koy wax sëñ Fall bu dee Kaolack la nag mën ngeen ñoo déglu ci 98 point mhm. su dee si net bi da di def ci Almadina euh, euh, bi nga xam ne moom la. sëñ Mara génne sëñ Mara ñu ngi lay gërëm baax baax yàlla na la yàlla fay. amiin képp koo xam ne soxla nga ko. coordonnées yi mu ngi nii 77. 617. 70 44. 77. 617.

mu ne loolu moom mooy jëlpinu xam-xam. Mm-hmm. ci xam mm-hmm. moo tax. Mm-hmm. Euh, dinaa ñëw ci li nga xamante ne nii moom mooy Faatiha. wallaay ndeysaan. ndax am na ñoo xam ne da ngay dégg ñu naan man lépp lu may def ci yenn sëriñ yi. wallaay du ma ko génn Faatiha. wallaay lu wér a wér ak soxla bu lépp lépp sa nay. kon mel ne dafa am benn secret tuuti ci wàllu. Faatiha boo coof lépp nga dëxañ ko ci troisième partie bi. wallaay ndeysaan fat bu passé laab bi ak lenn si asmaalaay husna yi. Faatihatul kitaab. nga xam ne farata la si jullit mokkal ko ndax jullit day julli tar benn rakk du wér. Mhm. lu dul fatiha ànd fatihatul kitaab ànd na si. Mhm. moo tax nu indi lenn si loo xam ne nit mën na koy jariñoo si fatihatul kitaab. Mhm. noonu mu ko waxee léppam léppam alxuraan bi ne 114 suura la. Eh, doon 60 eh, xisib doon 30 nu man ne bu bu ne tënk nañ ko si fatihatul kitaab xel nangu ko. fa la kon sunu indee leen na si fatihatul kitaab mooy la ma waxal rek lenn génn si alquranul karim mhm. moo am lu tuuti loo xam ne dinaa ko si maye. ndax juróom-ñaari aaya la. Mhm. comme na ñu ko waxee ñun nooy xaritu njaboot yi. Mhm. képp ku yàlla def képp ku yàlla may njaboot. seetal aaya bi bés ba muy tollool. mu mel ni alhamdulilahi rabbil alamin da nga naan mooy dimaas kon xayril mahdubi alayhim wala daalina mooy nekk samedi. comme noonu nga koy mën a déggee pour mën a xam ban bés la sa njaboot di tollool. da jàng fatiha boo àggee si bés ba mu tollool nga baamu aaye booba soixante-dix. ëf ko si ndox di ko koy nàndal. wala nga bindlu ko boog boo paree def ko saafara di ko koy nàndal loolu su demee ba gën a dëgër. billaahi la si laa ilaaha illaa giiru dundam yàlla dana ko dàqal lépp lépp lépp luy seytaane. Mhm. te fi nu toll ku mucc rek na ma koy waxee ku mucc rek àgg. Mhm. àddina su doon ne course la. Mhm. man nga ne ku mucc rek fa tabarakalaa da nga ne sa kanam. waaw te ñëpp mucc leen yéene rawatina njaboot yi. effectivement kon loolu nu ngi koy baaxee ñëpp. juróom-ñaari aaya yi. Eh, alhamdulilahi rabil aalamiina mooy dimanche. noonu nga koy jëlee rek kon. aaye bay mujj mooy doon xayril mahdubi alayhim wala daalina mooy doon samedi. kon aay bu nekk da nga mën a xam bés ba muy tollool mhm. paasegul mhm. même ki nga xam ne doomam am na at wala am na moo xam moo xam boo xamee bés ba mhm. te bëgg yàlla leeral xolam may xadd yàlla naa leen lool fa tabarakallah effectivement boobu am na solo eh, si fataxtul kitaab ba tey ku bëgg sa njaboot jub boo ko bindee ba si mustaqim baa ma ko li turam hmm. li mu tur lu am solo la kon loolu wax ne hmm. nit ku nekk numéro téléphone la hmm. turam ngay composé pour jàpp pour mu sonné pour nga jàpp ko effectivement si bi def si nan la nit mën a xamee turam comme bu dee alaaji nga tudd nga ne alaaji 43 la su mor nga tudd nga mor 246 la ak euh, tur bu mu mën a rek soo ko amee di nga mën xam ban chiffre lay bu ko defee mustaxima ngay takra ngay baamu sa li mu tur. Mhm. àggale saar ba li mu tur ka nga bëgg mu jub. Mhm. kooku ma fa tabaraka la saytaane noppi na koo not. effectivement lépp si fatihatul kitab parce que li ngay gis ni dama ko doon gis ci nasaraan bi. dañuy wax ne pour ba nga xam ne sa chiffre porte bonheur mooy. comme cheikh bi nii. dañuy wax A bi première lettre la D bi 2 la. B C nekk 3. dëgg la dëgg la boo ko jëlee par exemple parmi lettres yëpp nga jël di ko adat. après dëgg la lu wér loolu loolu lu. ndekete loolu am na fii tamit. ci biir ak am solo mu ngi si livre bi. mu ngi si livre bi dinaa koy wax lu bëri ni dafa war a xam tuuti si boppam. xam sa li mu tur day tax macha allah lépp. bu doon ne ñaan tukki la. Mhm. macha allah boo tegee si yoon dangay àgg si lu gaaw gaaw. effectivement fa tabaraka la baax na nit xam chiffre am. Mhm. dana koy dimbali si lu muy ñoddeeg lu muy dàq. Mhm. te loolu macha allah ngir xam sa tur. nan lay tollool. da nga ko man a am si kitaabu Wadduha. effectivement parce que da koy gis ci tubaab yi chiffre porte <laughs> kitaab. bëri na bëri na bëri na yoo xam ne bi tënk nañ ko si. si lu mën a jariñ. doomu aadama mm-hmm. si dundam mm-hmm. lu koy gën a jegelee boromam wax naa fi benn naafi la rek boo xam ne macha allah mm-hmm. ay junni junni junni nit wonan ma si ndax dan ko def mu jara ba muy saxi waaw mooy naafila bi moom moo nekk ci quatrième partie. bi sax waaw mooy si quatrième partie bi. waaw mais naafila boo xam ne lépp gën lenn gën si fatiha. te mooy ñaari rakk bu ne dix neuf boo pare nga def ko cent trente deux. dix neuf. Euh, fatihatul kitab. 132 moy al moy xalbu. xalbu mooy xol. muy naafila boo xam ne bi macha allah kep ko xamne beug nga gëna a ak sa borom. ba nga saytaane sori la. ba nga bok ci ñi yàlla gërëm. soko de def tabarak la yàlla dañ la ci bolé mo nek ci 3e partie bi. répété wat ko ngane fatia mo nek ci 4e partie bi. ni si buntu nawaafil wa rak ñaari rak rak bu nek 19 Fatiha. boo sëlmalee waaw soo sëlmalee nga defaat fatiha 132. ah naafila dafa la sa ne. si kon bu la neexee par exemple léegi ñaari rakk yooyu. premier rakk bi 19 fatiha. waaw deuxième rakk bi 19 fatiha ah. chaque jour. boo sëlmalee nga door ko def 132. Ah. xam naa ku koy man guddi altine. Mhm. ak guddi aljuma. Mhm. fa tabarakallah eh, nga di koy def. Eh, ne léegi xol yee. yàqu. wa xol ya xomaat. waaw fata mu ngi noonu. Mhm. tey nag mën nga ne macha allah da koy nettoyé. Mhm. si kattanu yàlla bari na lool lool lool lool ñu ma si. ñoo xam ne jëfandikoo nañ ko. Mm. tey gis nañ si bunt yu am solo. non non sëñ mm. Mara téere bi am na solo parce que mu ngi nii. maa ngi koy tim nii naa fi yi. Mm, ak euh, nawaafil it noonu bëri na ay nawaafil yoo xam ne day dàq njàqare. Mm-hmm. nawaafil yoo xam ne day faj aajo. Mm-hmm. ndax euh, la mën na ne audience la diggante jaam beeg borom bi. Mm-hmm. te macha allah dinaa di wax ne audience. saa yoo dem rek da ngay njort lool ne lool lépp loo fa yóbbu. danga si am satisfaction. loolay tax fa tabarak indi si. bunt yu bëree bëri yoo xam ne bi ay nawaafil la mhm. naafila yi day gën a jegale nit keeg boromam mhm. fatabarak laa day génne day génn si nit tamit rëy mhm. danay génne si nit bokkaale danay defar xol tamit danuñ ko waxee bu xol jegee rek lépp jag mais que su xol jege rek lépp jag. su xol moo tax des wax naa ko ma ne leen euh, gis nga antivirus bi ñuy def ci ordinateur. ci xol la gën a jag lu wér a wér kon yàlla na yàlla xel euh, installé antivirus. ci xol wallaay wallaay euh, te encore boo dee xool. Mhm. dañ cey def loo xam ne lu kenn dul natable la. Mhm. mooy maanaam. loo xamante ne nii doomu aadama bi boo nekkee ne yàlla def na ne mën nga bind mën nga nafar. Mhm. daanaka mën nga nekk sëriñ. lu wér a wér mbaa kenn du ko jël rek kaalawu rek commencé comme rek. ñëw wallaay wallaay wallaay. Eh, eh, ku ñëw la na jariñu jariña rek. Ah? bu loolu amee rek macha allah loolu lan say ut. <laughs> d' accord ndeysaan ne mas na mas naa. def bi de bu nu ñëwee si yoonu yi. waaw naay def émission Wadduha si siiwal fi ma nekk. Mhm. si lu ma ne belend la. Mhm. am bi ma xëy am ko ma ne ma loolu kenn waru koy wax. waaw mu ne ko loolu la ndax dafa am benn ngànca ba si nekk mu ne déedéet waaye loolu loolu. ma ne ko macha allah ñun nañ ñëpp jariñu rek. Mhm. wallaahi nañ ñëpp mhm. jariñu. yàlla xam na ne ay junni junni junni ni dinaa jokkoo ak ñoom. Mhm. ñoo xam ne bii dañuy déglu sa émission am loo sa wax. nu jëfandikoo ko yàlla may leen si eh, résultat. ñaan yooyu nu lay ñaane li jàppal ne nit mënula am lu ëpp loolu. ndax eh, ñaan mooy lépp fa tabarakalaa te ñaanu nit ko xolam sedd. du dëpp. day yéeg. effectivement effectivement mooy euh, tax yéene bi rek mooy loolu yéene bi mooy képp ku ko am it jariñu si jariñu si. Mhm. loolu rek lan si yéene fa tabarakallah effectivement loolu am na solo <laughs> eh, eh, eh, loolu am na solo ma ma fàttaliwaat rek ne ndax fii sax huitième bi maa ngi gis protection de la femme moom mooy aar ku jigéen ñi wallaay ndeysaan jigéen ñi moom war nañ leen aar lu wér a a mais xaar ma fàttali mbokk auditeurs ne rajo Almadina FM ngeen di déglu 100 <laughs> mm-hmm. seen émission Wadduha ki leen koy euh, defal ñu koy wax Serigne Modou Cissé ñi gën koo xamee ci Mara Cissé mm-hmm. ki leen koy présenté di Cheikh Fall Sow ma fàttalee ne sëñ Mara dafa génnee téere téere boo xam ne Wadduha la tudd. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, kitaabu Wadduha moom mooy téere bu ñuy wax Wadduha. Mm-hmm, téere bi nag mbooleem lu jullit bi mën a woo rek. mu ngi ci biir. daanaka peut-être ni ma koy waxee nii ak liy nekk ci biir téere bi sax moo ëpp li ñuy wax nii te xam naa ne kii buñ ko doon càmbar dina jël presque at. wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay tënk nañ si lenn tamit si suratu Yaasin waaw. lenn si njariñu suratu Yaasin. Mhm. tënk nañ ko si lu bëri bëri. Mhm. ak yooyu nga ko waxee luy aar njaboot. mooy cinquième partie bi mu nekk ci Yaasin boobu. Mhm. macha allah Yaasin nga xam ne lépp la. indi nañ si ay yoon yu bëree bare bëri yoo xam ne bii fa tabarakallaa bu si nit dafee tawasul. lépp lu mu si sàkku yàlla dana ko ko defal. effectivement mhm. waaw euh, ma fàttaliwaat ne parce que am na pharmacie Wadduha bi tam bëgg naa cee dugg mhm. euh, suñ ko temps bi permettre mhm. euh, parce que pharmacie Wadduha bi xaaral parce que dinaa ñëw fii tuuti ci li nga xam ne moom mooy ci téere bi mais pharmacie Wadduha bi aussi dama see gis lu am solo te yomb xam nga keroog dama ko ci doon bëgg kii far yàlla def temps bi xaw temps bi xojoon ñu parce que maa ngi ciy gis par exemple ci cinquième partie bi laay jël. Mhm. man toujours kaaraange laay wax ndax. wallaay na ma koy waxee li nga wax sànq. <laughs> Mhm, mhm, euh, aar kër. dèjà yaa ngi wax ne 7000 francs la. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. ku yore oto bëgg aar sa oto. ndax nag sëñ Mara. yaay dañoo iñaan du ñu bàyyi lu baax ak ku baax. wallaay lu wér a wér mooy li ma wax rek. 4500 yal ñëpp mucc. yal na ñëpp mucc. fa tabaraka laa bëgg ñëpp mucc ñëpp yokk. Mhm. mooy tax nu defee ko noonu bokk ko ñëpp. Mhm. tey macha allah bokk na si lu koy luy aar jigéen ju wan lor. dinaa mhm. koy wax ne am na. mu ngi fii ci huitième partie bi defe naa am na si am na si ordonnance yoo xam ne amul si benn pharmacie. bu dul téere borom bi te mooy alquranul karim. effectivement mm, indi doon ko siit ndax boo gisee léegi sëñ seex léegi sasaare yéen yi ni mu bëree. Mm-hmm. ak. Euh, est-ce que xam nga def naa avortement yeeg yeneen ak yeneen yëpp. Mm-hmm. bëri na bëri na bëri na loo xam ne nu ma koy waxee ñu. lu bari mhm. y' a quelque chose. man dama see def émission président gars yi dañoo daal sama man ne leen est ce ba mu nekk deal sax. wallaay ci gars yi parce que 800000 nga dem di ko fay wala te ku ñëw rek ñu daal di lay xotti rek yóbbu la. wallaay wallaay wallaay ah, ndeysaan bëgg ñëpp mucc te it macha allah nu commencé ko si njaboot gi. moo mhm. tax nu indi kiis lay lay aar jigéen jëw ji wan na lor. Mhm. bu ko yàlla may xelali lu koy aar. kiis indi kiis luy. leeral kiis bi maa ngi koy gis nii mm-hmm. parce que moom 4500 la. ah 4500 lañ koy wecci. waaw bu dee kiirlaayu jigéen ju werul bi tamit 4500 la. Mm-hmm. kiirlaayu oto. Mm-hmm. ak lépp luy machine. même kooku amul tey faral di tukki soo tey si kàttanu yàlla. kiirlaay la si lépp loo xam ne machine la. moom it 4500 la. kiirlaayu kër 7000. Mm, fa tabarakalaa yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne si kàttan yàlla cuuraay waaw cuuraay wallaay wallaay wallaay mm-hmm. cuuraay yi nga xam ne fa la bëri na si ñoo xam ne nelaw da leen ni jafe mm-hmm. boo ko barkeloo fa doo bokk ak saytaane néeg doo bokk ak moom kër <laughs> waa fa tabarakala moom it 500 lan nu ko oh, defee man suñu maanaam kii cuuraay bi jox ma ci. wallaay wallaay <laughs> ma ne ko bëgg ñëpp mucc ñëpp yokk. <laughs> ndax cuuraay 500 téeméer wallaay wallaay. Euh, wallaay vraiment tamit euh, taxi Wadduha it mu ngi fii. ba léegi lépp day dellu si daara ji bi sànq yaa ma koy uh-huh. jotuma ko nga xam ne fépp fu waay nekk mm. lépp loo bëgg mën na la koy indil. d'accord boo fa euh, bëggee ñëw si daara ji mën na la jël si delloo la. ok loolu lépp fa tabarakala bokk. boo si seen ñaan la mu ah, mooy Cheikh Cheikh Gadiaga boo. Eh, eh, ki ma eh, nekkal. infoline mooy information pour si kii bi moo nekk. Mm-hmm, mm-hmm. 77 017 41 45. 017 41 45. waaw moom Cheikh Gadiaga Cheikh Ahmed Tidiane Gadiaga. moom fi tabarakallah bokkooyee fépp fu doom foo nekk. Mhm. bëgg fa ñëw wala nga bëgg am lu nu la indil. d'accord mën na la ko indil ba sa dëkkuwaay. effectivement parce que mu ngi koy def nii. <laughs> Euh, ci teg si Wadduha bi. <laughs> ak euh, kii yu rafet yi mu fi def. 77. 017. 41 45. 41 45. loo kii mu daal di la koy euh, indil. indil ba sa dëkkuwaay. Mhm. mën na la jël si indi la daara ja. Mhm. man nga ñëw daara ji bëgg a delluwaat sa dëkkuwaay mu yóbbu la. yooyu yëpp fa tabarakalaan bu nu yàlla dimbalee si kattanam. Mhm. te yàlla nu ko defal defal ko ñëpp. amiin sunu yéene daal seex du mooy ñëpp mu ci ñëpp yokk. am na solo e, nu ngi ñaan ñëpp it e, ñaanal nu ba macha allah. Mhm. E, mission boobu nu. jël yàlla waaye nag gars yi jafe nga de. Eh. <laughs> gaa yi ko wax de. waaw parce que <laughs> leen non man xam naa si dara parce que eh. dèjà bu ñu defee émission. Mm-hmm. pour nga amaat ko sax beneen direct. walaay ndeysaan boo seetee bi nu gëjee toog mat na un mois. un mois walaay te lépp lépp nag amul amul benn bés boo xam ne bii toog na nekk suñu itte. waaw lépp it macha allah si tey doomu aadama yi nu koy sant yàlla bu baax. am na solo sant yàlla bu baax tamit. te nan koy waxee lu bëree bëri képp ku nu yàlla boole yàlla jiitu la fa. Mhm. ndax sunu lépp sunu lépp sunu lépp si yàlla la nu koy delloo. effectivement dinaa koy wax yenn saa yi da ngay toog mu ne dem naa si maaman bu nekk. Mhm. danga naan ko la ma koy njëkk a gàgganteel fekk si woo tey maaman. ki nga man jaa ki nga ñëwal tey. Mhm. jaamu ki man la. yàlla man. yàlla it moo maye. Mhm. moo tax lépp dañ ko koy delloo loolay tax it nan ko koy delloo te du koy sant yàlla it macha allah si coobare mu nuy yokk. Mhm. mu ngi ñaan ñëpp ñëpp ñëpp yokk. xam nga yéen mais suñu yéene daal euh, sëñ Cheikh. Mhm. mooy loolu may wax rek. xam nga maanaam <laughs> yéen xam naa leen. mais tey wax ci rajo moo jafe. wallaay wallaay wallaay parce que xam nga lu tax. Mm-hmm. bëri na émissions yu ñuy def ci sëriñ yi. wallaay ndeysaan di wax ay ci aussi tamit. Mm-hmm. doo ko bëgg sax ñii di animer émission. ma mm-hmm. nga gis koo xam ne aussi day toog ak sëriñ bi ah. wallaay wallaay day tàgg sëriñ bi day tàgg sëriñ ba nga foog ne xanaa ki moom ci yàlla la jógee. wal da da ngay déglu yenn saa yi <laughs> sëñ seex yoo xam ne oh. da ngay rus sax da ngay rus. <laughs> ay nan jox yàlla cëram. yàlla yàlla. mais c'est ça. waaye nit toog yëpp yàlla yëpp gum naan nangam ku may nangam ku ñëw man nangam nangam. am na si yoo xam ne bii sëñ Mara gis nga sëñ bi. waaw ku gis sa lu nit gis boppam. yàlla génne si loxoom te yàllaay lépp. moo tax damay waxtaan nañ jox yàlla li mu moom. Cheikh Ousmane Mbow mu ne nañ jox yàlla li mu moom. d'accord naa ñu dégg leen pour ñu góorgóorlu. dëgg la dëgg la. walaay da ngay dégg yenn saa yoo xam ne da ngay rus. te koy koy wax. Mm. <laughs> la yàlla xam doy na. man kay xam nga lu nit di wane war na jiitu sa moom. dëgg la waaw mais nag daal moom mu ngoog. waaw mu ngoog parce que. <laughs> yàlla nu <laughs> yàlla yokk gindi. amiin amiin amiin yàlla gën nuy yàlla gën a dàq caaxaan. yàlla gën a yàlla génne sunu xel naxe. Mhm. ak dil. Mhm. yàlla na nu yàlla musal si loolu. ak képp koo nar def. moo tax ma ne leen gis nga ñi mhm. xam. ñoo war a wax. Mhm. ñi xamul kay ñoom ñoo war a dem jàngiwaat. wallaay wallaay wax parce que on est dans le monde de la communication. Mhm, mhm, te sëñ Abdoulahat. Euh, sëñ Babacar si neen dof piir mooy kii wax ñëpp a yem. wallaay ndeysaan. sëñ wallaay bi ma bi ma sama waajur di wax. Euh, fa ne mën naa ne sama 40 ans. xam nga ko amul xam doo bi doo bind téere. wallaay wallaay ma sa sama <laughs> waajur di wax sa tur dana wër dana daj àddina. amaguma ñaar fukki at. man de kon loolu kon loolu jagleel la. du si sant yàlla sant si waajur yi tamit. dëgg la ñoom ñëpp yàlla dogal na tey na nga bar sàq yàlla yokk leen a yërëm. Mm-hmm. yokk seen leer. waaye ñun daal si njub. Mm-hmm. si njub ak lu yàlla gërëm la ni dox. waaw suñu lépp lépp lépp lépp yi dañu ko dañu koy delloo jalla jallalo mm-hmm. ndax yàllaay lépp. Mm, waaye yenn ragal ñeme yàlla yeeg yenn. naxe yeeg yenn wax yoo gëmut yi nanu ko wàññi. mais loolu laa wax ma ne leen bàyyi leen sëriñ bi xam-xamam. walaay walaay ah non non c'est waaye nag léegi ku ku nu nax dafa ah wallaay ay nit. Eh, sëñ Mara am na seen yoo xam ne ñu ngi nelaw ba léegi de. <laughs> yàlla yàlla yee ñëpp. Ah, xaar ma fàttali rek. yàlla ma ñi nga xam ne. <laughs> ndax yàlla yàlla yee ñëpp. <laughs> ñun daal yoon bi sëñ. seex bëri na ñu mu neexul nag. keroog sëñ Basiru dama may waaw mu ne ma sëñ Basiru jenn. bu mhm. borom jenn la nga nekk fële. Mhm. ma am na ñu mun a pour ma daal mu ne ñoom bëgguñu man ma daal leen parce que man damay dal ko sëriñ si. bëri na bëri na ñu mu neexul yoon bi ñu jël mais ñun daal yoon boobu lañ jël waaw mm, mm, mm. luy dimbale lépp luy dimbale doomu aadama ak fu mu mën a nekk. Mm. si kat sunu yàlla sunu yàlla dimbalee. Mm-hmm. jot bi la ak liggéey bi la mais pharmacie bi heure bi waroon a fekk lu ëpp trente produits yu si nekk. Mm-hmm. mais fa tabaraka la xam ne saa yoo xëyee togg ak lu jege quarante personnes. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu war. xam nga man ñëw naa sa kër. Mm-hmm. waaw keroog ba may ñëw wax dëgg yàlla li may wax nag sànn nga est-ce que moo parce que wax ci rajo dafa jafe. Mm-hmm. nit ñi dañoo kii man leen ah, man de maa ngi jéggalu parce que ñëwuma pour euh, kii. Mm-hmm. ndax booba soxla euh, nañu. bon ma ne ko parce que dafa am lu tuuti rek la ma bëgg a gisee ak euh, Mara. ngeen may ma ko. ndax du faju ah te ndax bëgguma woon a déranger kenn ndax li ñu wax rek nit tam boo ñëwee nga fekk fa ay nit <laughs> mais ànd ak teggi ndax mën naa ñëw force mbir mi ñu gis ne kat ah kii kat dafay am lu muy kii mhm. mais mhm. euh, ma mhm. damay wax ne nit ñi nañ dem gëstu bu ñu bukki bu dabee ponkal ca wallaay lu wér lu wér lu wér fan yee passé benn télévision am benn yenn année kii yun si doon def si sëriñ si da dégg ñu la koy nettali naan ma yaa ngi koy seetaan yaa ngi koy déglu ma ne ko loolu de lépp lu nu sa wax. Mhm. ñun mbégte la nu sa am. bu fekkee leneen la ñuy wane. Mhm. su dee leneen la ñuy wane. Mhm. la si ñun ndax na ma koy waxee fii ma yàlla def ma nekk si sama ndigalu jur am naa fa fukki at ak ñaar. macha allah yàlla dimbale na ma ma am sens interdit. téléphone mosu la sonné it wuyu ma. nit it musuma dépensé. xam nga dafa am loo xam ne sëñ Mara. Mhm. man xam naa la yow mënoo ko. <laughs> xam naa ñoo xam ne bu mbir mi doxul ñu dem defi ambulant. wallaay wallaay mais yow mënoo defi ambulant. wallaay wallaay wallaay kon xam nga fàttaliwaat tër yi bëgg <laughs> ñoom bu ñu bëggee dugg ci émission bi ci lii ci tam ci ko defee euh, ci 88 628 18 28. 88 628 18 28. képp koo xam ne bëgg nga dugg ci émission mu am looy laaj wala looy participer mhm. rek mën nga jaar ci 88 628 18 28 ngeen di déglu rajo Almadina FM 100.8. C'est une seen émission Wotuha ki lañ mhm. koy koy defal di Serigne Modou Cissé ñu koy wax Mara Cissé ki leen koy présenté di Cheikh Fall Sow ki ne ci kaw tamit ñu koy wax Sëñ Fallou Sow mmh. Mmh. bu mu jokkoo bi 88 628 18 28 téere bi nga xam ne Mara bind na ko nag Mara Cissé bind na ko mmh. euh, képp koo xam ne yitte woo nga ko rek euh, mun nga woote ci 77 617 70 44 77 617 70 44. moom moo mm-hmm. nekk li ci Guédiawaye mm-hmm. bu kee point 1 la mun nga def 70. 922 23 75 70. 922 23 75 beneen bi mu ngi nekk euh, Tëngéej. Mm-hmm. boobu 77 la. 262. 36 28. 77 262 36 28. ndax téere bi. daanaka da lay gindi. wallaay wallaay wallaay. ci gindi boo xamante ne nii mën nga bañ a dem sax di laajte ci keneen. lu wér a boo gàggee. wallaay wallaay wallaay. te mm-hmm. lii lu am solo la. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi. Ah, gis nañu fi aussi tamit ci li nga xamante ne nii moom mooy. Euh, bii ban la ni daara daqaayiru xaruna rasid boobu kiirlaay la waaw ak daraaximo kiis yooyu ah, ay ñaan la yu rëy ñaan la yu rëy rëy rëy hmm. fa tabarakallah nekk ci sixième partie waaw kiirlaay bu rëy rëy rëy rëy nan koy waxee ne jamono ji macha allah hmm. ñëpp war a ñaan mucc hmm. si kàttun yàlla moo tax nu def koy moo nit am ko di koy jàng ngir bëgg di mucc si lépp loo xam ne pexe la. mu mm-hmm. soreek bu jege bu nit ak bu jinne mm-hmm. wala nga bind ko it ak nanga koy jëfandikoo. Mm-hmm. mooy parti boobu. muy yoon boo. muy sixième parti waaw muy yoon bu am solo. beneen bi eh, daraximul kiis. waaw beneen bi moom mooy septième partie nga xam ne fatabaraka la bëgg naa tàggoo kumute. bëgg nay xéewal yomb ko bëgg nay fatabaraka laa eh, ay buntam ubbeeku dinaa koy wax ne ku wax ne dafa tëju. kuy wax ne dafa tëju rek jéemut. xam nga sëñ Seex kii mm-hmm. dàq napp. Mm-hmm. si sunu baay alaaji bu saaxu laa ko ma sa déggee. Mm-hmm. mu nekk ki dàq napp si monde bi. boo ko yóbboon àllukaañ. du la in ma a indil jën. dëgg la ndax. la mu dafa nekkul. kon am na ku nekk ci ligne bi nañ ko jël. 88 628 18 28 mbokk mu baax mi allo. bisimilah waaleykum salaam wa ah ndeysaan Gaye El Hadj Modou ah waaw waaw jërëjëf Gaye Gaye. Ah, nu ngi nu ngi nuyu mbokk Tëngéej yëpp di nuyu sama jigéen. soxna Aram Ndiaye ñëpp ñu ngi lay fay ba dëgg la dëgg la yal na yàlla àggale nuyoo bi. jërëjëf jërëjëf ah, waaw ndax yow moom xëy na Sénégal xamaguñ la mais xam naa ci kanam tuuti ñëpp dañu xam ci may maara. jërëjëf kay. waaw man xëy na mënoo ma wax ba mais li nekk sama xol lépp da mënul génne dañ lay ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla daal suñu borom mu yàggal la fi. amiin amiin amiin kay amiin te yàlla yokk xam-xam bi yaatal xam-xam bi bu baax a baax a baax a baax. amiin kay. di di ñaan ñu mel na yow rek bëri ci Sénégal. amiin loolu rek la ñuy ñaan xam naa ne gëcc wu la daal wax dëgg yàlla bi ñu la amee ba léegi Mm. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax. yàlla na yàq lu bëri man de sama wàllu bopp laay waxe man ak yëg-yëg ak li ma am ak li ma maaraat defal ak li ma jëlee ci yow. Mm. waaw xëy na yàlla nag moo ko jaarale foofu wax dëgg yàlla mais maa ngi sant alhamdulilah rabbil alamin. yàlla na yàq yàlla bu baax a baax a baax yàlla na yàq yàlla na yàq. dina ñaanal guddi fan ak wér. li nekk sama xol dafa ne ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu fayal la boppam. amiin amiin amiin jërëjëf waaw amuñu ko fay billaahi wallaahi taala kontaan na si yow trop. jërëjëf jërëjëf waaw di ñaan képp koo xam si nag xamaguma maaraale ñaan yàlla yal na la yàlla xamal li kenn may naa la. amiin amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf na. ñu jaar wala suñu ah, lay delloo ziar bu wéral la <laughs> sama sëriñ. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkeel eh, loolu am na solo eh. xam naa ne mooy Mara yaa ngi sax téléphone bi man kiiwulu ma eh. mais aussi il faut ñu boole ci auditeurs yi walaay ndeysaan su ko defee ñoom itam ñu participer 88 628 18 28 88 628 18 28 maa ngi gis fii sax kii boo xamante ne nii boo ko bindee dafay faj bépp sa jàngoro mooy. da nga koy mhm. juróom benn fukk ak allahu saafi. Mhm. nga naan ndox mi wallaay allahu saafi yàllaay saafara. Mhm. yoon bu am am solo la. lépp luy tawar rek def ko ndox bu bëri dinaa koy wax ne arxuraan. nan koy naan nan say naan ba màndi. Eh, waa day nay tax lépp lu lëndëm. te léegi li lëndëm dafa bëri. te dinaa di wax ne bokk na si doyadal tawat. macha allah. ak bu mu mën a doon. day koy fajoo si côté yëpp. Euh, boo boo si jiitalul alxuraan de ko si boo ko si gannaawal. Mhm. allahu saafi mhm. lépp luy tawat fa tabarakalaa soo ko jëfandikoo yàlla dana ko woyofal. parce que ki ay feebar. Mhm. jàngoro yoo xamante ne ni daf koy ay bopp yu metti ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii day am na si paas yoo xam ne. pour mbiru tawat rek la moo xam bopp ba la moo xam tànk yi moo xam biir. moom laa tiim nii euh, lu mu doon si tawat rek am na yoon boo xam ne soo sa defee tawasul. Mhm. moo xam looy jàng la looy bind bopp ci loxo bi ci kaw bopp bi. wallaay wallaay ndong li mhm. lu mu mën a doon rek fa tabarakalaa soo demee mën nga ko fekk te. loolu am nekk sëriñ. ma ne ko ko am rek mucc fa tabarakalaa. Mhm. nekk sëriñ ndax ngay doon. damay ragal est yow ma euh, sëñ Mara. est-ce que gars yi par exemple ñu jël téere bii. Mhm. kaal woo ko dem fële ci rajo yi <laughs> commencé yokk kii bi ne eh, naan ko dem. nangam nangam bu boobaa nanu nanu sa jariñu hmm? jariñu si rek ah, loolu daal la yéene bi. <laughs> wallaahi yéene bi mooy ñëpp jariñu. wallaahi yéene bee ñëpp jariñu sama hmm? émission Wadduha foog naa bëri nañu ko. ñu koy topp. Mhm. waaye boo gisee màgg fi mu mooy nit ñi danoo xam ne yéene naa leen. effectivement loola ma leen yéene nu delloo ma ko. Mhm. Euh, kon Fatou amunu seen fay. ku mhm. mel ni euh, ndeysaan sama jarbaat bi génn léegi. Euh, bokk na si ñu njëkk am kitaabu Wadduha mu jële ji woon ko fële Tëngéej. moom fa tabarakalaa nu ngi koy gërëm ak sunu jur yi nekk point 1. xale yi nekk kër gi di jàppale si liggéey bi. Mm-hmm. xarit yi wëllëre yi soppi ñëpp. Mm-hmm. fépp fu wëllëre nekk. Mm-hmm.

borom xam-xam yi dañoo war di bind tey sax euh, presque mën naa ne autorités yu bari ñu nga woon foofu. ci lii lañ doon mm, la macha allah. waaw parce la falaa ko jëlee noonu. ku mas defar El Hadj Fallou Cissé. waaw moom noo defal sport boobu. Mhm. maa ngi feddale sama collègue ak moom di koy euh, ñaanal tey moom la ñu doon rendre hommage. wallaay ndeysaan. waaw ku ko mérité la. Mhm. ku i autorités yoo xamante ne nii macha allah. Mhm. Euh, te du wax ne borom xam-xam yi nañuy bind Mm-hmm. su ko mm-hmm. defee ñuy mën di gindi nit ñi mm-hmm. kon damay fàttaliwaat mbokk te rajo Almadina FM ngeen déglu 100 point 8 seen émission Wadduha euh, ki leen koy présenté di Cheikh Fall ki leen koy defal ñu koy wax euh, Mara Cissé ñu gën koo xam ci Modou ñu gën koo xamee ci Mara Cissé euh, téere bi ni nga xam ne moom la Baye Mara bind nag Mara Cissé bind képp koo xam ne yittewoo nga ko nga soxla ko rek mën nga jaar ci 77 617 70 40 loolu mooy numéro. sama numéro mooy numéro Daara ja. 77 70 44. 44 d' accord. ba 104 79 17. jox ma Expresso euh, parce que nekkul fii 104 170. 104 79 17. 79. 17 moom mooy sa Expresso. Mhm, mooy mooy sama 70. 104. 79 79 17. d' accord bu dee mhm. point E la. Mhm.

fu nit nekk Sénégal te amuñu fa wëllëre. Mhm. néew na macha allah ma ne ko loolu. yàlla ngi internet bi moo nekk 3W. point euh, wadduha point org képp koo xam ne bëgg nga xam dara si Mara Cissé. Mhm. soo defee 3W point wadduha point org. Mhm. da nga fa fekk lépp loo xam ne bëgg nga koo xam. waaw xam naa ne xam interview bi ma mas a def ak journal la. moo xam émission bu ma mas a def télévision wala émission bépp boo xam ne mas naa koo def rajo. boo demee da ko fa fekk. Mhm. di bu baax tamit inspecteur. joxaane moom a njëkk dalal fii Almadina. d'accord. sama émission Wadduha bi may def siiwal tamit mm, invité woon naa ko fa macha allah. Mhm. mu def fa waxtaan bu ama am solo. Mhm. même waxtaan boobu mhm. <laughs> mu néew kattan ma man moom laay wax wàllu réseau. <laughs> Eh, eh. ndax portable dafa war a am tonalité vibreur batterie <laughs> pleine ak réseau. Eh, euh, gis naa ne fii yaa ngi ko fiy def xam nga kii dama ko gisul woon mais kii prochaine émission il faut ñu waxtaan ci. incha allah parce que maa ngi fiy gis nii nga ne pour la la virilité mm-hmm. loo xam ne boo ko defee ñi am problème lu wér wér wér si looy sikkar waaw wallaay am na si askar yu bëri yu si nekk mooy lu nit di jàng waaw sa giiru dund mm-hmm. yàlla dan lay may kattan effectivement naax doo mas naax tamit mm-hmm. tey ay feebar yu paralysé yu bëri yàlla mën na la si dimbale te lépp nanu ko waxee bunt bi mooy borom bi fa tabarakallah eh. te soo ko ñaanee mën na lay may. Mhm. te nan koy léebee rek man xararal baaba wala ja wala mhm. nit moom lépp lu mu nekk te sax sa dëggu sa dogu sa. Mhm. yàlla dana ko fekk. parce que am na si yoo boo koy booleel. Mm, mu ngi noonu mu walaay boobu buy xam ne dafa xaw a kii. <laughs> dafa dafa faible. waaw looy lu ni naanale ak buy. Mm, fa tabarakala yoon yu am solo. te yooyu yëpp day defar lépp. effectivement ak mm-hmm. ñoom itamit mu ngi nii seen kii bi nii lépp fa yooyu yooyu yu bëri bëri moo xam la ngay lekkandoog ndawal mm-hmm. la ngay lekkandoog laax mm-hmm. la ngay naan naan ak yaa ngi koy booleel yooyu yëpp fa tabarakalaa mu ngi si kitaabu Wadduha xam naa ne lii il faut que ñu ko semaine bii di ñëw euh, su ko defee dañu lay bàyyi rek nga tàggatoo ndax comme une heure temps am te temps bi jeex na dama lay bàyyi rek nga tàggatoo walay sant yàlla lu si jub yàlla lu si dangi nu ngi koy jégalu di wax ñëpp ne xàddiya la pour yow. Ah, <laughs> di wax ñëpp ne yéene bi mooy. dimanche mooy aljuma bu nekk rek si kattanu yàlla suñu yàlla dimbalee. Mm-hmm. vingt 22 sur 23 seet na ñëw fi wettali contact ak yéen. comme ni ñu koy defee dimanche. waaye jot la yombul de jafe na. nu <laughs> si jéggalu fa tabarakalaa si <laughs> rediffusion yu bëri yi. suñu mm-hmm. yàlla dimbalee incha allah. Eh, ajjuma bu nekk rek danañ fi ñëw di wettali contact ak yéen. Mm-hmm. suñu dëkkuwaay buntu lycée Seydina Limamou laay bu Géejawaay. buntu lycée bi. Mm, en face buntu lycée bi. am na boutique Touba téléphone maa ngi koy nuyu. Mhm. Serigne Fallou sama jarbaat bu fa nekk. Mhm. am na boutique buy jaay portable. Mhm. am pentu ba orange jàkkaaroog buntu lycée bi. boo fa demee képp waaw képp ku ñëw foofu rek dana la woon dëkkuwaay bi. si kàttanu yàlla lu dul bésu àjjuma si kàttanu yàlla nu ngi sunu dëkkuwaay. incha allah e, looloo képp ku fa ñëw nanu koy waxee yàlla jiitu la fa. incha allah te nga fekk fa loo gërëm it loolooy sunu yéene. Mhm. di yokk ñaanal bu baax it jur yi jiitu. di ñaan yàlla saafara tawat yi. Mhm. yàlla faj ajo yi. fa tabarakallah yàlla yokk xéewal yi dàq gàllankoor. yàlla yombalal ñëpp te ti bëgg sangu. amiin njaboot yi sàmm leen. yàlla làq it fu yàq àggul. wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu euh, jërëjëf euh, jërëjëf euh, Mara vraiment maa ngi lay gërëm tamit ci livre bi nga xam ne may nga ma ko man xam naa léegi ma commencé def émission <laughs> kii doogan ndax li ma ci gis nii xam naa defuma sax xam naa ne ku ko jënd xam maa ngi gërëm ñëpp sëñ Fall mu ngi may wax ne temps bi jeex na tàkk tàkk tàkk ma wax ne Almadina FM ngeen doon déglu 100 point 8 seen émission ki leen ko doon présenté ci Cheikh Fall Sow Mara di leen ko defal aljuma bu jot coordonnées yi nga xam ne moom la ñu mën a jotee Mara 77 617

36 28 77 262 36 28 kon maa ngi leen di jox daje incha allahu rabi dimanche incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci seen jërëjëf xiiwal dikkati na jóge ci alaaji moodu siise ñu di ko wax maara siise mi leen andiloon karaafil xamsuna xaaf ijaabu rasuul samsul bilaat moo andiwaat kitaabu wa duha téere bu bari njariñ toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñetti paas loolu de mooy jëy sun ña xeex badar am na ay ñaan ak nawaafil ak lenn ci njariñal sóoratu yaasin ak mbóoti juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeenti tur yàlla yii di asmaawul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

ëpp na njëgam juróomi junni ngir faj sa mbir Wadduha yàlla moo ci yoor yoor la léppay leer alaaji Mamadou Cissé Mara waa góor